salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant a gars yi Lionel Messi wax na de nee na Real Madrid est la meilleure club au monde Manchester City nag wax na ci moom maa ngi ciy ñëw nan la naka la balaa dara nag képp koo xam ne ni abonné goo suma chaîne YouTube aboneel ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir kon nag bu leen koy tàyyi dee leen abonné ci ñi nga xam ne dafa ko waaye ñi abonné ba pare. nañuy like du la jëriñ du la wàññi dara waaye ngay commenter di partage mu ngi noonu ñëw ci kàddu yu Lionel Messi interview bi mu amaloon bu mag a mag a mag benn par benn lañ leen indi ay moom en français traduire ko dañ ko laaj fa laay njëkkee sax quel est le nom du groupe WhatsApp de léquipe équipe nationale argentine xam nga équipe nationale yëpp daanaka dañu am groupe WhatsApp du ci déggante passante information ñu laaj ko ban tur la seen groupe WhatsApp équipe nationale yore. Messi ne ko je ne me souviens je ne me je, je pas laisse-moi voir nee na ko bàyyi fàtte naa ko xaaral ma xool mu xool la ba mu gisee instant boobee mu ne son nom est champion du monde tur bi mu ngi champion du monde xam nga ñoom ñoo champion du monde ba xam ba tax nag seen groupe WhatsApp bi loolu lan ko tuddee mu ne kii est l'administrateur du groupe des joueurs de l'équipe nationale kan mooy administrateur kan mooy dugal ak kan mooy génnee Messi tontu ko ne ko c'est Paredes mooy Paredes milieu terrain bi nekkoon foofee ca euh, Paris Saint-Germain te am fu la rek moom it mu ngi noonu Messi nag ñu laaj ko tu pratique la yoga on dit que c'est bénéfique Messi ne ko non je n'ai jamais dañ ko laaj nag da ngay def yoga mooy inspiration respiration yi ñuy faral def inspirer expirer nekk wéet méditer wu et tout na ko mosuma ko def mosu ko essayer euh, ñu laaj ko alors tu vas à la salle de sport ba xam da ngay dem salle de sport mais na ko pour augmenter si damay dem pour augmenter ma force pour yokk sama doole mais pour la prévention gën a am kóolute wóor lu wóor lu sûr je fais beaucoup d'exercices de musculation pour le dos damay def ay exercices yu bëri ci musculation ak ginnaaw gi dëgg ginnaaw gi ak doogeeg yooyu nee na les jambes est certain pour les hauts du corps mais surtout pour la prévention mu ngi noonu Messi nee na il est clair qu'après avoir gagné ay atteint tous les objectifs au niveau de l'équipe nationale les choses sont différentes nee na après ba mu euh, gagné euh, mën naa ni li nga xam ne moo nekkoon ci boppam lépp. jël na Liga Ligue Est Ligue des jël championnat Espagne yooyu yëpp lay rappelé waaye li ko gënoon a neex muy jël coupe du monde beeg Copa América bi ak Argentine nee na mën naa ni lu bëri actuellement dafa changé ci ay xar kanamam c'est clair et net leer na nañ ci petit nit ñi nee na avant que j'étais à Barcelone avant ba muy nekk foofee ca Barça nee na je me sentais euh, comme si je gagne tout que j'étais aimé par les gens na ba muy nekk foofee ca Barça saa yu demee Barça moom day jàpp na ne euh, mu ngi nekk à l'aise te it comme mën naa ni jël na lépp te euh, xelam dafay dal te nit ñi dañ ko bëgg waaye te une fois euh, mu dem foofee ca Argentine mais nee na mais quand je suis arrivé en sélection c'était comme s'il me manquait quelque chose nee na saa yu demee Argentine rek day mel ni que daa am lu ko manqué woon boobu avant mu jël coupe du monde ak Copa América bi la loolu nag moo nekkoon trophée mu mujjee jël nii nee na pouvoir tout réussir et le summum pour moi loolu daal moo ko manqué woon bu baax a baax te bëggoon naa jël lépp réussir lépp lépp lépp mu ngi noone Lionel Messi sur MSN bi bañ ko laajee ci euh, Messi euh, Neymar ak Suarez ba xam Neymar dafay ñëw foofee ca Miami puisque Suarez fekk si na ko fa pare nee na euh, moom ak Neymar dañuy waxtaan souvent nous parlons souvent nee na nous avons même un chat de groupe avec nous trois am nañ benn groupe boo xam ne dañ ciy waxtaan ñoom ñooñee muy Suarez ak Neymar ak kooke moom mi di Messi. Euh, nee na Neymar nag parle parfaitement espagnol dafay wax bu baax a baax a baax nee na un petit message pour le recruter ñu ne ko un petit message pour le recruter Messi ne ko non je ne sais pas la vérité c'est que c'est difficile maintenant il est en Arabie Saoudite actuellement dafay. metti ci moom tey mu ngi Arabie Saoudite ba pare yamaatuñu foofu dafa am ay blessure doon fa dund fa difficulté yooyu yaatoo yaatu yaatu mu ngi noonu nee na et je pense que qu'il lui reste un an contrat des na ko foofu benn contrat un an boo xam ne nii du da ngay ñëw rek foqati ko waaye yamaatuñu foofu il a eu euh, une année difficile où il était blessé pendant une longue période dafa am année bu metti metti boo xam da ko dundu boo xam ne nii dafa blessé blessé bu yàgg bu yàgg sax ba tax nag mënoo tëb tëb rek këf ko noone nee na la vie prend tellement de tournants que tout peut arriver mais je pense que pour l'instant non nee na jamono ji jàppagul ne Neymar mën na ñëw foofee ca Miami. ndax dafa am contrat foofu waaye na lu ne mën naa am lu ne mën naa am mu ngi noonee mu doon mbir moo xam ne ni jot na ko leeral concernant la défaite en final de la coupe du monde 2014 et les moment difficiles qui ont suivi la défaite en finale de la Copa América dañ ko laaj ci difficulté moom yi métti nga xam ne jot na ko dund ci défaite bi ñàkkoon final bi ak coupe du monde 2014 contre kooke di Allemagne waaye ak Copa America yi ñu doon tegle di ko ñàkk ak contre kooke ñu naan ko euh, mën naa ni euh, euh, que équipe nationale bu ñoom Arturo Vidal ak Alexis Sanchez mbirum Copa America be coupe du monde yooyu ma doon ñàkk jot na ci génne ay kàddu nee na jamono yooyu c'était très difficile pour lui nag amoon na kàddu yoo xam ne da doon jot a génn yoo xam ne nii ay création la ay invention la dañ ko doon créer te du woon dëgg euh, te loolu dañ ko doon def juste pour euh, faire du mal euh, yàlla nag jàppale na ko ba mu waat ci raay bi ba yàlla may ko mu jël coupe du monde jëlaat loolee di coupe Copa América bi nga xam ne ne toog nañ ay moment di ko wër mënuñu ko am Messi quand un tournant commence que ce soit la coupe du monde ou la Copa América l'Argentine est aussi une candidate que le Brésil mais je crois que les équipes sud-américaines sont très amee wala Copa América Argentine dafay bokk ci candidat ñi nga xam ne ñoo war a jël la lii di euh, Copa euh, América ba ci coupe du monde ba ci sax Brésil moomee euh, nee na jamono ji équipe Amérique du Sud dañoo diis bu baax a baax a baax nee na l'Uruguay est très bon tout comme la Colombie et l'Équateur nee na Uruguay Colombie ak Équateur jamono ji dañoo baax mu ngi noonee je pense que la Copa América sera très serrée te ren jii dina metti dina yëngu te dina tegu ci temps participer à la coupe 26 bii di ñëw préparation bi nu muy demee Messi ne ko je l'ai déjà dit cela dépend de euh, comment je me sens et d'être réaliste avec moi-même cela dépend aussi euh, de comment je serai physiquement Et si je ku encore concourir et aider mes coéquipiers, il reste encore beaucoup à faire nee na loolu dafay dependre ci état de forme am ci mentalité am waaye dafa war a euh, dox ci dëgg mu ngi noonee nee na aussi euh, dafay dependre tamit ci physique bu baax a baax a baax pour mën a euh, jàppale équipe am boobee di Argentine pour ñu mën a wëyal jëlaat beneen trophée nee na am na lu bëree bëri bëri yoo xam ne dañ ko war a defaraat mu ngi noonee Messi ñu laaj ko avez-vous regardé de la Coupe du Monde 2022. Mais sinon, j'ai regardé quelques moments et j'en mais profiter avec la famille xool na ci quelque te it jot na ci savourer dund ko ak mbégte ak kookee di famem mu ngi noone Messi je suis soulagé d'être champion du monde car la dette euh, que j'avais envers ma famille mon pays et tous les fans est désormais payée mais la vie continue je vais essayer de gagner à nouveau la Copa América euh, Messi nag nee na actuellement dafa soulagé lu bëri wàcc na ci moom ca ba mu jëlee loolee di coupe du monde bi nga xam ne jot naa weesu uniquement euh, pour fay bor bi nga xam ne euh, lebaloon nañ ko ko muy famem euh, ba ci ay fanam ba ci waa Argentine nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci moom nee actuellement la vie continue àdduna bi dafay continue di dem di woy nee na tamit dina jéem a def kéem kàttanam ngir gagné loolu di Copa America bi euh, bu baax a baax a baax nee na loolu ngéneelam la te bëgg-bëggam la ñu laaj ko terminé mooy kii la meilleure équipe du monde Messi la meilleure équipe du monde est le Real Madrid ce son les champions d'Europe actuels nee na meilleure équipe bi ci monde bi Real Madrid la nag actuellement aussi ñooy champion d'Europe waaye tegaat ci leneen nee na si nous parlons de résultat il a bien précisé le Real Madrid est le meilleur na su ñuy wax ci wàllu résultat ak ay performance ak i trophée Real Madrid mooy maire moom moo ci mën nee na si nous parlons de performance Manchester City dirigé par Pep Guardiola est le meilleur loolu la génn wax nee na bu ñu doon laaj ci wàllu performance ci wàllu jeu Manchester City bu Pep laa moo ci man loolu la génn di leeral la kookee di Lionel Messi mu ngi noonee interview bi daal daanaka dans l'ensemble jox naa leen lépp li ma leen joxagul woon mooy que arrêt bi nga xam ne ne Martinez jot na ko def ci coupe du monde contre France mu doon arrêt bu yéeme boo xam ne contre attaque boo xam ne ñoom jàppoon nañ ne ñàkk nañ match bi nee na nous avons eu une contre attaque donc je ne l'ai pas bien vu je après que nu soyons devenus les héros et je dirais que c'est un super arrêt nee na euh, bàyyi ci woon xel nag dañoo amoon contre attaque mais après jot na ko seetaan waaye it ci lay euh, doog a rendre compte que ni vraiment action bu yéeme la woon waaye it kii nga xam ne ne jot na génne arrêt bi def na arrêt bu baax a baax bu exceptionnel kon nag mu ngi doonee gars yi looloo nekkoon xibaar jëmee ci kooku di Lionel Messi ma leen xaar ci commentaire na ngeen gisee ci kàddu yi nga xam ne jot na ko génnee muy Real Madrid ak kooku di FC na ak waaye kooku di Manchester City ngeen bindal ma ko ñu ko jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen i vidéo jaa ngeen jëf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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ euh, la doon authentique lay doon yaa koy defar réglage yi mise à jour et tout ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp balaa muy génn ci biir bi am bi ñu bindal ko nag loo ngeen fii moom lépp yaa ngi na quoi ñu dem ci deuxième question bi